adventure. You can also follow the day stories and other GRS programs live on our website at www.grds.gm. There you can be privileged to monitor GRS Radio Live. With that, we come to the end of the news at 8. Join us at 10 for another edition. my name is Papali. I'm the Director of Corporate Affairs at FSL. Uh, I know that Ramadan is already gone, but uh, we just want to recap some of the things uh, that we did over the month of Ramadan. Quite a lot of things happened that uh, a lot of people were not privy to see. We did quite a lot of distribution of rice and sugar to a lot of masjids uh, from Banjul all the way down to Koina. Uh, the reason why we've been doing this uh, is uh, all part of the sharing and caring that we subscribe to because uh, we felt that uh, this is a very good month and is a month uh, whereby we believe in caring and sharing. Before the end of the Ramadan, we decided to do a big iftar and this time around we chose to do it at uh, Dipakunda whereby we showcased the biggest plate ever seen in this country. Something that I'm sure the Guinness Book of Records would have been very proud to have on their books. So we fed quite a lot of people and uh, these are things that uh, we will be doing in due course and I'm sure in years to come we will be seeing something more amazing than this. gërëm waa Africell ci liggéey bu rëy bii nga xam ne moom nañu commencé ci at yi yëpp ndax wax tëgg yàlla ndimbal li ñuy def ci réew mi ñëpp gis nañ ko ñun de fuñ toll ñu ngi leen di ñaanal yàlla ndax seen njëriñ xam nañ ko te gis nañ ko te yàgg nañuy ñëw fii di dimbale waa masjid Seyful Islam fii ci Mandiaye Kounda kon ñu leen di gërëm di leen sant di leen ñaanal yàlla compagnie bi yàlla na ko yàlla jëmale ci kanam te toog ba dégg ko ci ay réewi réew ci barke alquran barke weeru màgg wi barke allahuma salli ala sayyidina ak salaam weeru jégale weeru jàmm ak yokkute ñu ànd ci jamu yàlla ba mu jeex ramadan moo ñuy boole ramadan ak yàlla ak yonin ramadan mu à présent ak salaam ramadan la ilaha mbokki jullit yi ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ñu leen di nuyu di leen siyaar ci weeru kooru màgg wi nga xam ni mooy Ramadan Mubarak sunu bokki Africell yi nga xam ni at bu nekk fa tabaarakallaahu jumaay ji fii ci Afdaay ak yeneen jumaa yi ci dëkk bi yëpp ak réew mi di leen fa yóbbu seen teraanga yi muy sukur ak maalo nga xam ni nit ñi soxla nañ ko lool fa tabaarakallaahu di sàkku ñaani jullit ñi ak ñaani mbooloo mi nga xam ni ñooy dëkk ci gox yëpp ñu bokk ñaana leen ñoom yëpp yàlla boole defal leen jàmm ak sutura ak tawfiq yàlla yóbbu keeti compagnie bi ba ca kaw a kaw a kaw a kaw a kaw kenn bañ leen a féete kaw ñoom ñu nekk number one ndax fa tabaarakallaahu li ñuy def euh, wax dëgg yàlla sunu xol sedd na ci ñoom bu baax li du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon every year rek fa tabaarakallaahu bu Africell ñëwee ci diggante maalo sukur dinañ fi wàcce loo xam ni ñëpp seen xol dina sedd fa tabaarakalaw ñu ngi di ñaanal yokkute ak sutura ak teranga di jaay Seydina Muhammad sallallahu alayhi weer wi ak euh, bis bi nga xam ne moom leen ko andi fii Africell di leen gërëm bu baax a baax ci jëf ju rafet ji ngeen def ci weeru koor ak ci lu dul koor daaw fekk nañu fi yeneen at ci gannaaw fekk nañu fi ci xéewal yi nga xam ne ngi ñëw waxtu bu nekk di leen gërëm ci loolu te dinañ ci ñaanal yàlla dinañ ci ndokkeel bu baax baax ci weer koor bi tamit di ci ndokk mboolem julli ñëpp wax dëgg yàlla defal leen ñu ko julli ñi ngeen koy defar ndax ku or ba ngoon jot nga yëkkati ko jox ko am lii nga def ci sa njar loolu su ko dogee rek yéen ñeen bokk yool bi ku or ba jot nga yëkkati ceeb jox ko am lii nga togg pour ndogu su ko lekkee rek yéen ñeen bokk yool lépp loolu lañ ci def ci lépp loo xam ne lu baax la rek ñu ñëpp ñoo ko bokk saxaaba ba ñëw na ci yonent Yàlla sallallahu alayhi wasallam yoon dafa ne képp xam ne kii or na képp ku dogal ku or am nga yoon bu rëy rëy rëy rëy rëy bi laaj yonent Yàlla sallallahu alayhi wasallam ko ah nekku ne kenn ku nekk ci yunde moo am lu muy dogalee ki or parce que boobu foog na ne fi mu toll nii pour ku or ba ngoon jot suuf ngoor su ñëwee war nga ko rayal gëlëm sama nangam moo ngi ko jox yonent ne ko dee lu yomb yomb la benn tàndarma rek soo ko jëlee jox ko ko or am nga ci yoon bu rëy rëy rëy mu ci am te ci moom li ci am dara. Ramadan ak yàlla ak yoneen Ramadan mu ak salaam jam mbaalu tentula suto aniŋ tiloo kaatu alimaŋ ɲinaŋ naŋ fana alimaŋ ɲinaŋ la be bankoo kaŋ saŋ wo saŋ a ka ɲiɲɔŋo keenoo ye i fanaŋ be do a la wo la ɲaato taa be do a la alama ala tanka alama ala ye naali kisa alla kompino alama ala ye yiriwaa ke je alla kompino alama ala ye kambeŋo ke je tanka la setaani ma kayiro bundaa wo bundaa naali ka ma alama yen ala joŋo alama ala ma ala ye naalu firin kan baa kaŋ jaata kendeya kaŋ firiŋo niŋ laba ñiña suta niŋ manta beŋ ala ma ala yo kaali ali fana ali be fondinkeya kono ala ala ye ku kayira kono ala min nata kayira kuto abe ala le ala sa keno ala ma ala yewo asilanta kula ala ala ye naali kisawo manso hinanta kaŋ jamano ala ma fo ala kayira amaŋ sabatiña sonna la kono ala maŋ tankala la banko kaŋ ko a ñasito be kayirol bulu ala ma ala le hina na la balfa ka banko alma sumala alma fala kairan alma sumala alma fala kairan albe do ko min na samba nyabe ala bul alma la sona kila hormo sabula annabi mo hormo to dona wato mo sun karo hormo sallallahu salli ala muhammad bismillah kontaan nañ bu baax ñu ngi leen di gërëm di gërëm compagnie bi seen taxawaay ak seen liggéey bi ngeen di def ci réew mi ak doomu aadama yi rawatina itam yi ngeen di def muy ay bir yoo xam ne nit ñi da ngeen leen koy jagleel dégg naa bi sa ngeen di ay paasi màkka ak ñu ngeen di war a yóbbu màkka ak sukkur yi ngeen di joxe ak ndog yi ak yeneen teranga yi nga xam ne yeneen koy def lu yëkkate ko ci réew mi rek yéen ngeen man yeneen ciy dugal seen loxo di ci def liggéey bu baax di jàppale te loolu itam lu am solo la kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla yokk seen compagnie yokk leen doole yokk leen itam man-man wërsëg bi gën a yaatu ba daj mboolem jaam yàlla ñi ngeen ko yéene rawatina réew mi ngeen dëkk di Gambie di fi defee liggéey bu rafet bi ñu ngi ñaanal itam staff bi ak ñi nga xam ñoo nekk ci bopp ba ci suuf yàlla le leen taxaw leen teraanga yi ngeen def itam muy sukkur yi ak maal yi ngeen di joxe ci weeru koor wi loolu itam dimbal la yéen di wax na ne man fattara fii